jaar na fi ci ay plateau yu bëri di partager ak ñi ñi ko invité xam-xamam incha allah suñu thème bi bi ñuy partager ak moom incha allah mu di sëñ Abdou Ghafour ñëpp xam nañ ko dina présenter euh, ñu ngi bëgg a waxtaane Qur'an wala jullit ak Qur'an ak naka la war a jëfandikoo Qur'an jullit ak Qur'an wala jullit naka la war a jëfandikoo Qur'an loolu mooy suñu thème bi tey mais du ñàkk incha allah balaa ñu tàmbali dinañ jox Serigne Mokhtar Gueye mu daal di ñoo ubbil euh, mbir mi ak alxuraan ndax alxuraan googu duñ ko génn ci la ñuy waxtaan incha allah bismillahi rahmani rahim شهدت لك وقالت أهيت لك وقالت هت لك وغلقت الأبواب وقالت إيه هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وغلقت الابواب وقالت هيت لك قالت الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت sadaqallahul aziim jërëjëf mbokk yi ginnaaw bi nga xamee ne déglu nañu aayaat yooyu ñu jële ko ci quraanu karim ñu gërëm sëriñ Muxtaar yàlla ko yàlla fay ay yu am solo ci quraan euh, sëriñ Abdou Ghafour euh, balaa ñu tàmbali laaj ak tontu dañu lay bàyyi nga nuyoo mbokk yi nga xam ne yàgg nañ a gis seen TV mais ñu ngi lay doog gis ak nuyu nga daal di nuyoo gën a présenté wu ñu xam jëmm ji xëy na xam sax gane àdduna bi fan la euh, ndax cosaani ndakaaru la la ca ca ca kaw ga la wala xam-xam bi tamit euh, nga baaxi ñu tuuti euh, ñu yaa fan la borom bi fan la ko baaxee bi jaarale ko ci woon sa waajur ci nekkoon wala bokk da leen ci fekk pare yokkaat wala déet kon présenté wul nga andi ci loolu bisimilah. jërëjëf alhamdulilah ustaaz di wax ni aouzu billahi samil alim min asheytaani rajim alhamdulilahi alladi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokki jukke jullit yi mbokki àddina mbokki Sen TV ñu ngi leen bu baax a baax di ñaan yaa ñu tëdd ci lalu hôpital yàlla na yàlla fëgg seen bopp ñu caabi féete ginnaaw yàlla na yàlla ubbi leen bu ñu ca delluwaat ñu nekk jafe-jafe tam yàlla na yàlla saafara leen moom mi nga xam ne mooy fa'alu lima yurid Oustaz Azzas danañ danañ sawar ci laaj bi nga ñu laaj muy fan nañu ganee àdduna ak fan nañu jàngee alquran ñun ñu ngi dëkk Kaolack quartier Ndorong ki ñu jàngal nag meññanteem ci alquran muy suñu wëlëru wajur muy Cheikh Mouhamadou Bassirou Sarr nga ca ngaan sayer di ñaanal di ko ñaanal yàlla na ko yàlla gën a kàttanal yàlla yàlla yokki ay fanam mu dund lu baree baree baree bare kooku daal lépp loo xamante ni bii mu ngi moom mooy ngi ci alxor am am am nañ ko ci alxuraan yàlla ak jëmm jooju la yàlla bi ñu wàccee ci ruumam moo ñu dalal baasin jàngal ñu alxuraan ba ñu wàcce ko ak yeneen yi nga xamante ni bii maanaam doomu aadama da koy xam ci wàllu àddunaam buñ fa jógee tamit ay wëllëreem joo xamante ne bii moom tamit ko yàlla mayoon na ci wàllu xam-xam muy alxaaji yaxya juuf ma nga ca ndooroon kër sëriñ Maaru ñu koy nuyu bu baax a baax moom tam am na lu mu def ci ñun parce que dañ fa daan bu ñu wàccee waan ñu dem bindal ko ci yenn ay alquran yeeg yenn xawaatim yi bu demee noonu mhm. bu teyee mu jox ñu ñu ngi jëndee fonde wala yu demee noonu wala tey mu yëkkati xam-xam jox ñu bi fa jógee tamit génnee nañ ci yenn dëkk yi nga xam ne moo wër la kon ñu leen di Koutal wala Taïba Niassène wala yenn dëkk yooyu nga xamante ne maanaam yàlla def na fa ci meññantal ci wàllu xam ñu gëstu ko ba tey jii ñu doog a yegg si fi mu yegg ci gàttal daal bu ñu bëggee tënk ñun tamit suñu wajur wu góor yàlla defoon ko mu nekk taalibi Cheikh Ahmadou Tidiane Chérif yàlla mayoon ko nag wax dëgg yàlla lépp lu mu la daan ñaanal bu ci jàngee faatiha ñetti pare jawharatul kamal wala ñetti pare salaatul faatiha aajo boobu dana faju lii daal tey jii foofu lañ mën commencé ci mbir mi ci suñu régime tuuti comme temps bi moom dafay def ñuy xaw a xot yu bëree bëri. waaw lii daal oustaz. dañ ah. ci mën a waxtaan ba ca kanam. jërëjëf sànq rek maa la naan euh, fanweeri minute li nekk sa bopp du ci xaj. Mhm. mais bu ñu fa amoon une heure temps tamit du ñàkk am na loo xam ne du mën a feeñ ci télé bi ci wax. Mhm. ndax du lépp la ñuy wax ci télé ci wàllu xam-xam. Mhm. ndax nit dana ko dégg bëgg ko jëfandikoo. fekk juum na wala ñàkkaa dégg li waa jiy wax mu jëfandikoo ko mu ko. quran lu tax nga jël quran nga bàyyi lépp ne nañu jël quran loolu mooy laaj ma lu tax nga jël quran bàyyi lépp nga ne nañ ko waxtaani jullit naka la ko war a jëfandikoo lu tax nga jël quran waxoon nañu jël leneen na ko jullit jëfandikoo nga jël quran lu tax waaw xam nga oustaz dañu am dañu toll ci àddina boo xam ne bi li fi réparé yëpp alquran a koy réparé mhm. parce que yàlla wax ci alquran wa nunazilu min alquran ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminin mhm. maanaam kooku bu waxee loolu mu wax na ko wax na ko jiitu ñuy judd ñun mhm. jël mu wàcce ko fa mu ko wàcce mhm. mu jógee sa lawxul mahfuus mhm. kon am na loo xam ne bu demee doomi aadama bi bu demee dem ba toll am ci jafe-jafe wala mu toll nekk ci benn cas bu critique ne alquran mënu ko saafara moom war na seetaan boppam mhm. parce que nag maa farat naa fil kitaab min shay'in waaye nag daf ci am ñoo xamante ni bii dañuy gëm alquran dama lay wax ne alquran da nga koy gëm wóolu ko ba koog sa lépp ba boo ca biñ la ci bindilee benn xaraf boo ko jëfandikoo yàlla fa saafara am na ci nag ñoo xamante ne bi dañuy gëm alquran waaye duñ ko wóolu am na ci ñoo xam ne mën nañoo wóolu alquran waaye duñ ko gëm koo ci jox muy sëkki sàkk kooku gëmul alquran na dem seeti boppam wala maanaam gëm-gëm nekkul ci moom mm-hmm. parce que yàlla wax ci alquran innahu la quraanul kariim fii kitaabil maknuun mm-hmm. laa yamassu ilal mutahhariin la mm-hmm. kon yow bu fekkente ne bi doomi aadama jullit nga nga xam ne dangaa julli ñu daal di nodd ci nopp ba li xam ci ñu yëkkati alquran di la ko jox nga naan ba ma ko fi bàyyi dem seetaan leneen loo xamante ni bokkut ak sa diine war ngaa xool sa bopp nee naa la jamono bi fi mu nekk ak fi ñu toll alquran rek mën a lijjanti mbir si waaye nag ak naka la ko war a nit ki mën a jëfandikoo ak kiy liggéey alquran fan la ko alquran toll mm-hmm. parce que am na ci ñoo xamante ne bii dañ koy ngis taloo mm-hmm. nga koy gis am na ci ñoo xam ne pour ñu liggéey ISRA foog ñu dugg ci mbooloo yor kaamil wala nga fekk ni déedéet mbir mi ci sa dënd lay ne mhm. am na ci ñoo xamante ne bi jàng nañ alquran lool waaye bañ ko gëj a ibbi kenn xamul nu xamul kañ la am na ci ñoo xam ne weeru koor ba weeru koor ngay génn ngay gis kaamil seen loxo mhm. am na ci ñoo xam ne yor koor ba weeru koor lañu jënd kuris jënd si yaare mel ni ku nekk ci benn profession wala ku nekk loo xam ne da nga koy teeru su ñëwee rek nga daal bàyyi loolu mhm. pour lan kon nag nañu xoolaat jikko yi parce que xol bi la yàlla di soxla ma ñëw ci benn laaj arxuraan boobu léegoo léeg yaa ngi naan nañ ci dem mhm. léeg nit di ko jëfandikoo te dafa mel ne day xërëm mhm. wala mu jëfandikoo ci loor ci nit arxuraan bindoo noonu wala moo ko jëfandikoo nu ko neex arxuraan bindoowul noonu oustaz Xasan arxuraan ah. damay wax ma ni daf ci am loo xamante ni bi yàllaa ko inna allaha laa yaxfiru an yusrika bihi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha daa cay teg innahu man yusrik billahi faqad arama allahu alayhimul janna wa ma'wahum nnaar wa ma lizalimina min ansaar ci wàllu bokkaale bi ngay bi ñuy wax foofu rek mhm. yonent bi nag daal di ñëw dëggalal ñu mhm. daal di ne alaa unabbi'ukum bi aksaril kabaa'iri mhm. salaasan yay ñett xaalu ñu wax balaa naam yaa rasulallah al isriku billaahi bokkaale yàlla ñu ne wal xuquuqul waalidayni ak dëngee sa ñaari waajur kon yow sa jëfandikoo Quraan doo ci boole bokkaale déedéet kon expliqué ñu yaa ngi nit di jël Quraan nag man ci lor nit kon est-ce que Qur'an la yem wala dafa am leneen lu ñu xam nga dafa am ñeenti pàcc yoo xamante ni bii da ko def xam nga ñii dañuy def euh, zulmaani yu waaw ah, façon xam la loolu waaw bii mooy nuuraani bi nga xam ne da koy composé ci aw xawaatim ak sungufu ak reen ak mhm. plank tey ji ne ma lay wax ma ni la doomu aadama bi mhm. ni yàlla wàccee juróomi julli ci moom mhm. ni la war a mën a utiliser garab ak alxuraan pour muy dox ci doomu aadama bi parce que boo xëyee fajar bu julli ñaari rakkay fajar déjà xajar fajar xar na yaa ngi gis di lépp bu dee njanaalu ak lu mu ci mën a doon ma ngay dem di sàbbal yàlla yàlla yow bettee ñu xéwal yoo xamante ni balaa jant bee sa dal ni ñëwaat pour jaamu la pourtant njanaaw lu ñu faat waxtu ku ci faat waxtu doo doo doo doo fanaan ñun nag dañuy dajale ay boru julli journée waaye ku ci sa directeur woo nga daal di fay bàyyi julli bi dem sa yoon te directeur boobu yàllaa ko wàccee maanaam comme dafa am ci lu bari loo xamante ni nee naa leen nit ñi am na ci ñoo xamante ni bii maanaam ak caay-caay la ñuy dugal ci mbir mi gis nga xam-xamu zulmaani yu maanaam ak nuuraani yu wutee na torop ci ki nga xamante ne bi ñooñ ci def lu bon rek lañuy la ñuy sënkandiku wala tey ji ñu génneel la sacrifice damay wax ne génn sarax ak génn sacrifice dafa wute waaw loolu ràññee ñu ko bu baax parce que bokk na ci li ma waxtaane yow mhm. da nga naan faw nga dimbali nit ki faw mu génnee sarax mhm. ñun jàng nañu ne mhm. sarax xam nañu njëriñam mais lan mooy différence su sarax si ngay wax ak sacrifice yow doo def sacrifice déedéet parce que yàllaa wax ci alxuraan innama sadaqat lil fuqaraa wal masakin xam nga génneel nañu tey ji li nga xam ne mooy baasu sarax ak ñi ko war a nangu waaye am na ci ñoo xamante ni bii damay wax man ni la da ngay dem génne ci aw nag génn ci loo xamante ni bi day xëpp ko li nga xam ne bokkul ak bokkul bokkul ci sa diine ci mm-hmm. wàllu sàngaraak yu demee noonu wala tey ji sa taal yoo xamante ni bii da lay ci xam-xam bu ñu la daf lay lëndëmal mm-hmm. léegi nag am na ci ñoo xam ne dañuy wax ne loolu moo gën a gaaw waaye li gën gaaw mun naa ma ne ko da nga am daanul suñu borom mm-hmm. parce que du loo xamante ni bi bokk na ci sa diine du loo xamante ni bi yàlla daf laa rëddeel yow diine yow jullit bi fi nga war a jaar ni nga war a jëfandikoo alquran am na ci nag ñoo xamante li seen problème muy maanaam baatu kiñaan mhm. moo leen di dugal ci lenn li oustaz kat dénk nañ ko benn entreprise bërëb boobu toog na fa moom kat du ma bëgg mu toog fi mhm. faw ñu dem ci wàllu woowoo nga xamante ne bi da dem danañ la nawtal wala ñu xabtal la wala yu demee noonu nga xam ne ba dootul sa conscience dootul tranquille mhm. tey jii am na ci loo xamante ne bi bos boo ko defee rek sa njullit dafa des parce que jullit du teg moroomum jullit ab natt wala teg mburoom jullit ab ba moo xamante ni bii mën na cee jëlee lor mhm. moo tax ñu ne man ne la alquran am na ci ñu bari ñoo xamante ni bi te parce que da nga ci bind xawaatim boo xam ne dañ koy wëri ay ay alquran nga ci tafxir ni waaye loolu tey jii am na ci ñu bari ñoo xamante ni mën nañ ko wëlbati ko def ko beneen sens boo xamante ni bi ci wàllu deret la ñuy soxla te bokkul ci ñun dama ne mhm. Sénégal heure bu yëngoo dama dama ko fi wax ma Sénégal mënoo toog weer woo xamante ni bii point yi nga xam ne fa àddina yi daje dara tuuru fa wala xeex amu foo wala dégg ku ñu rey. Euh, nga baal ma bi seetaan naa la ci euh, plateau Sen TV. ba mhm. dama la ko wax sama biir émission da nga koy layal. Mhm. dama la gis ngay jël décision yoo xam ne dama xool ma ne kii dafa am fit. li muy wax fan la ko teg. Mm-hmm. dama la koy doo wax tey nga leeral lañu ko. Mm-hmm. avant affaire Sonko bi dama la dégg. nga naan bu ñu arrêté wul xaw ma deret dina tuuru xaw ma lan. avant mm-hmm. li xale yi di dee nii. waaw dama la attaqué keroog sama xel. xam nga maa ngi doog a jàkkaarloo tey waaw loolu dama la koy wax. sama mission fii dina leer. ma ne ci yan yan yan yan yan base nga tegoon loolu. loo gént la. wala loo wird la walla lan ci ban may-may nga ko am. waaw ci xam nga damay wax ne gént dana am. waaye damay wax ni doomu aadama bi boo nekkee ci bërëb boo xam mbir moo xam ne da nga ci liggéey te da nga ci recevoir ay àddina ay doomi aadama yoo xam ne benn bopp boo demee bu fukki weer yi ak ñaar weer yi war a ñëw war ngaa def dugg sa ruq def sa riyaa daal sa bopp li nga def ci lu négatif ak li lu positif mbirum Sonko bi bi ma ko gis 31 décembre la te li ma waxoon le 19 février laa ko waxoon di lu ma bett parce que dama def riyaada ba jur bi nga xamante ni war naa pare pour xëy suba génn suma sarax yàlla war na ko ci gént mu nekk nit koo xamante ni dafa mel ni mbooloo da ko wër tey ji ñii sol ay ta ñii nekk ay takk der moom sol dàll solul mbaxane solul dara mu mel ni koo xamante ne bi day dem di armali di kàpp di dafa tarxlaay mel ni koy armali <laughs> fu mu teggi tànkam nag mu am ndox ma ne ah kii bu def ndànk ku ko laal musiba am de même guddi gi laa defaat sama xiyaamul lay li diggante trois heures quatre heures nga xamante ni li ciy delli xaru fajar jot boo nekkul sax ci fajar bu bari nag mbooloom fi mu taxaw mi ngi taxaw tiim leen lépp li ko wër lépp deret la ma xëy suba dama génn rek dama wax sama waa kër mooy ñu ne ma ah 2020 bi day moom yàlla nañu dëddoog jàmm man leen 2021 mooy gën a garaaw du lu ma bett yonent bi am na benn xalaatu bu ma joxoon ñu ne képp koo xam ne yaa ngi koy def mhm. yàlla dana la xamal loo xamante ni bii mhm. luy ñëw du la bett te yàlla dana la ubbi mhm. lépp loo xamante ni bi yaa ngi koy wut suñu borom dana la ko yombal te guddi ni sallallahu ala muhammad kooku danañ ko liggéey waaye am na ci beneen tëggin woo xamante ni bi maa ko tëggal sama bopp génne ko ci allahu xayul qayumu allahu xayul qayumu tey jii boo calcul am wàllu dunia 174 la. am wàllu dunia 174 la. maanaam alalu àdduna. 174 la. nga daal def Makka ak Medina. maanaam baatu am wàllu dunia. xadatal léegi 174 boo ko da dara jox 174 174. Euh, nga daa def Makka ak Medina. mu jox la même chose. boo ko tëggee. allahu xayu xayul qayum 174 la lay jox. mu ñetti yii. lee ci wàllu àdduna lay doon. waaye boo ginnaaw bi nga amee wàllu àdduna ba pare nekk jullit lan sa xel la ci lu muy dem di ziyaar yi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo pare nag allah xayrul xayrum googu noonu comme que allah yi dama xasaf ko allahu 66 lay taxaw yi dama ko génn génn allah xayrul xayrum boole ko am wàllu dunya bi 174 la ak Màkka ak Medina bi 174 la léegi boo ko xamee pare daf lay andil 1660 1566 euh, moom la lay indil day jàpp aaya bee nekk ca suuratu yaasin wasalal naa lahum fa minha rukubuhum wa minha yaakuluun baatu sër sim bi 300 la raa 200 muy 500 dafay ñëw fekk la nga daa def allah ismullah al azam bu wér mhm. da ko ci tëgg mhm. ci wàllu wërsëg mhm. ci wàllu kaaraange ci wàllu yàlla xamal la loo xam ne bëgg ko koo xam ci foofu lañu tënk am na ñoo xam ne dañuy jël tabat di tur nit ñi tabal yada mën naa ko tekki xam naa lu tax mu wàcc ci yonent bi eh. xam naa ko bàyyi eh. bàyyam Abu Lahab moo ko toroxal ci kanam mbooloo mi yàlla wàcce mm-hmm. aaya bi dal ci kawam mm-hmm. xamal ko ne moom moo perte mm-hmm. moom moo ñàkk et cetera ak soxnaam si nga xam ne Umu Jamil la ci tënk loolu la woon mais nit ñi pour pourquoi ñu koy jël bàyyi fi yeneen saar yi man ci faagaagal nit pourquoi jëluñu xul am béréb bi naas wala xul waay ñu jël tabayada waaw man damay wuteeg damay damay wuteeg ñoom ci ni koy liggéeyee mhm. damay wuteeg ñoom tamit ci ni ñoom ni ñu koy déggee mhm. comme firi nga aaya bi rek bu tabat daa bi lax dafa ne tabat na ah. ab ah, eh, tabat ya daa ab mhm. ñaari loxo mi la njëkk wax maanaam amatul ko njëriñ lu muy liggéey du baax wa tabba moom ci boppam taskare na maa na anu maa waaw alalam du ko jëriñ lu mu fàggu du ko jëriñ ah. ak loraange moo ko ciy wutee mu te sayes laa naaran dana dugg soxla zaatala buy tàkk soxnaam sax dafa doon revenir ne wamra atu ñu lan moo ci wut lan moo ci andi nag faagaagal nit waaw xam nga da nga ne ni ñu koy liggéey ak ni ñu koy liggéey wuute ni ma koy liggéey ak ni ko nit ñi di liggéey dafa wuute man mën naa cee taal nit léegi leeral bu baax waxal ci kaw mën naa cee taal nit léegi branché ko ci léegi léegi mhm. xam nga li tax mhm. muy danga koy tëggeeg tëggin woo xamante ne bii boo defee tabat yaddaa bi boo ko taa adatee taagi cent la baa gi 200 da ngay am 403 403 boo ko adatee tey jii daal di génne yaa Muhammad yaa Muhammad 103 la waaye bu dee Muhammad rek 92 la yaa gi day ñëw waaye ci kaw yaa gi bu ñëwee nag maanaam da nga koy booleeg Latif Latif 129 la da ngay am fi mu nekk nii wali yuul yaa Latif nga daal di koy tëggi adatu tabat yaddaa bi lex ba ba saar yu jeex. léegi nag bu paree boo koy bind da nga koy def baax da kulli kallima baat par baat ngay bind baat boo dugg tabaat da def sa yaj alallaahu baada xusri yusran ginnaaw jafe-jafe bu nekk yàlla dina ko yombalal mu ngi noonu loolay tekki boo paree baa gi bu ñëwee da ngay def wa yansuraka allaahu nasra asisa mooy yàlla dina la dimbali mhm. ndimbal goo xam ne bu tedd la paree baa gi day ñëw mhm. taagi day ñëwaat mhm. tabaaraka allazi bi yadihi ko wa ala kulli seen qadir allazi xalaqa al mawta wal xayaata kooku mooy nguur day ñëw moo tax ma ni la koo ci bëgg a fal mën nga cee bëgg a fal parce que mm-hmm. yàlla moo ne dee njëkk bind njëkk may bind doomu aadama xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan mm-hmm. moo tax ma ne la tabbat am na ci ñoo xam ne liñ koy liggéey tamit am na ci ñoo xam ne dañ ciy teqali ay nit waaye li ma ci mën a wax ci tabat dafa bari tey ji am na ci loo xam ne bu dee ku ñu la wala liggéey tey da koy bind juróom-ñaari yoon mën naa ko may téléspectateur yi am na ruq waaw waaw comme alquran la alquran la li ma mën naa la ko may parce que mm-hmm. boo koy liggéey tey ji koo xam ne dañ koo sànni kort wala koo xam ne tëdd na ay at feebar mm-hmm. ñu naan kenn xamul lu ko jot su demee ci docteur bi ñu gis lan la da bind baax di kulli aaya faatixa juróom-ñaari fa aaya moo ci ne mm-hmm. aaya bu mu def na def tabat daa def farjihil basara hal tara min futurin summa irja'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basar qaasi'an wa huwa hasiir. basar yu jeex. mu ngi ci suur taba tabaaraka. surtout mooy su fi ma génn léegi. basaar yu jeex. mu daal di koy tënk juróom-ñaari yoon bu ko tënkee juróom-ñaari yoon bu fekkente ni ku am feebar la boo xam ne mu ngi ci biir yaram kenn xamul lu ko jot na ko xooj boole ko ndoxu zamzam di ci naan bu dee koo xam ne dañ ko sànni korto kenn xamut lu ko jàpp na wut inde bu bees wut xay dem ba ci géej ne mu tegale xeer taxaw ci jël indi bi teg ci boobu sottoo saafara keroog lépp luñ ko defoon day dem bu dee koo xamante ni bii nag dañ ko sànni kort wala palaasam dañ ko jëlee na mm-hmm. ko liggéey bu ko liggéey da koy boole takku ngeer bu bees tàq mm-hmm. ngeer mm-hmm. bisu ajjuma la koy sangoo parce que am na ci ñu bari ñoo xam ne ajjuma duñ ci sangoo garab nee na duñ ci liggéey man duma ci liggéey mu def ko bis boobu heure bu ko defee moo tax ma ne la tabba daf ci am ñoo xam ne li nga ci bëgg ci lu bon la ngay ngay concentré alxuraan hmm. dama la wax lu bon amaana nag nit ñi ñàkk gëstu wala ñàkk xam mbuutum alxuraan jeexital gi mu def ci ñoom hmm. moo tax tabbat yi daa mbir la moo xamante ni bi nee naa la ku ko gëstu bari na njariñ lu ci nekk am na ci ñoo xam ne nag dañ koy def pour wutukaayu am am waaye du dëgg ci ñoom moo tax chaque jour ñi ngay gis ñi naan dañuy liggéey alxuraan te lal leneen ci muy def jeexatal si ñoom tawat wala daanañ dama dem ba dootuñ gis mbindeef moo xam ne dina fa gis seen bunt. waaw loolu dugg naa fi nga nekk sànq mais li ma fa gis ay sunguf laa gis. Mhm. ak mbind. Mhm. alxuraan nga ma wan. waaw loolu laa mën a seede. waaw eh, am na loolu fa wan comme rek xam naa du ñu mën a wax fii mbirum suuf nga ma wax eh, loolu jàpp naa du lu ñu mën a leeral. Euh, ma ne nit ñi ñu nangu seen suuf yi. yaa ma naan lii bés bu nekk doomu aadama yi lekk ko. Uh-huh. te moo naa de ku ñu war a nangu suuf mën nga caa génn ba jotaat sa suuf. xëy lool nag secret la. non mën naa mën naa ko wax xam nga am nooru fépp su leen lépp di leere. waaw de façon. mën naa ko wax waaye ñi koy dégg nu ñu ko jëfandikoo. voilà te te rassuré ñu ne doo am ak xërëm. yàlla seede na ko. jeex na en tout cas. Uh-huh. mbir la moo xam ne. Uh-huh. ñi ñu bëgg doole néewal doole ci seen suuf pour ñu jot ko ñaan la. ndax amoon naa. ci jamono suma côté ñoom maam moom ñu la bëggee tëj ci par la force moom daañu la jox laan boo koy lekk di génn loolu xamoon naa ko ci ñoom maam bu ñu la bëggee tooñ mais pas ku bëgg nangu suufu nit jàpp kon liggéeyoo mukk kenn du ñëw ci yow pour liggéey loola nit wala nangu loola suufu jàmbur wala korte loola nit wala tax nit dël jaw yaakaar naa yow doo liggéey ci loolu waaw xam nga alxuraan dafay am benn aay bu qul waqul yaa alxaq wa zaaqal baati inna al baatila kaana zahuuqan mhm. yaakaar naa ni li may seetaan yàgg bi ma gis di jëflante ak man boo waxee ñu ne ma da nga xaw a compliqué xamoo maslaa parce que damay wax ni alquran dafa am ñetti baat yu mu wax fa quulaa lahum qawlan layyinan fa quulaa lahum qawlan kariman fa quulaa lahum qawlan shadidan yaakaar naa ni du yii wax ju nooy la wax ju sell lii wax ju diis la wax ju diis yooyu yaakaar naa ni ku ma ci jëflanteeg loo xamante ni bii dafay lenn bokkut ak sama diine soo ñëwee doo dégg lu neex dama koy wax bu baax ci télé laay seet àddina man seetaan ku ñëw nag pour ci jafe-jafe dinaa la dayal dalal wax la wax joo xamante ne bi donte dangaa amoon sa xel lu bon lu ci nekk dama ci génn parce que dañuy ne doomu aadama bi faj ko nekku ne da bind alquran jox dañ koy ñëw fajee ko ci sa avant mm-hmm. ngay ñëw di ko jox mu sama mm-hmm. mm-hmm. parce que yonent yàlla Moussa bi ko yàlla di wax ne ko ne wa kallama Allaahi moo tax yu ci bëree bëri doomu aadama bi li ma ci mën a def rek ci alxuraan la def ak cosaan suñu maam mhm. gis nga li ma laa li ñuy waxante léegi man la ci mbirum suuf xam nga ci lan lañ koy def mhm. ci jën mhm. doomu aadama mënta xëy suba ba ngoon jot te lekk lu jóge ci ndox doomu aadama mënta xëy suba ba ngoon jot te lekkul loo xam ne toggee nañ ko ci cin ba yàq ko jox ko mu lekk xeet yooyu moom lañu cangee suuf koo xamante ni bi néewal na la doole pour bëgg a nangu suuf par la force am na ci yenn yoon yoo xam ne boo ci jaaree ci baa ci alquran mhm. mbindeef dootul laal suuf soosu bu dee fu rab nekk la tamit maanaam der la boo xamante ni bi gërëm la muy ndoxul gëléem googu ci am yenn baat yoo xam ne da nga ko ciy bind waaye baat yi boo ko bindee ni ko alquran ande da nga koy adat ba mu tolleeg siifuru baatu gëléem mhm. nga darbu ko boo ko darboo nag ba pare dafa lay jox lim bi nga soxla mhm. moo tax ma ne la am na ci yenn kër yoo xam ne ngi tabax na ba pare waaye mbindeef mën a gis a dëkk wala da ngay dégg kër yoo xamante ni da toog at mu nekk mu tàkk loolu lépp mbirum rab bu bon moo cay nekk di def waaye nag parfois yu ci bëree bëri dama koy faral wax nee naa ni nit ñi nañu xaw a yeewu tuuti damay dégg ci ñu bari ñuy gaari gaay di séparé rek ak jinne ñooñu dañu doon gëstu jiwaat mm-hmm. parce que yàlla jinne la tudd ci alquran ne lu dul ñu jàmm wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li ya'buduni ba pare nag andi leen saa spécial muy qul uhiya ilayya anna istama'a nafaru minal jinni kon soo demee bay séparé jinni ak rab war ngaa xoolaat sa rab baatu wolof la wala fa xool jinne tuddee ko rab mootu tuddee ko neex naa dégg. yaa ngi dégg. wolof moom lu mu jékku rek da koy wutal tur. c'est ça le problème léeg ñu xool la nga def rek rab ñu ne kii dëmm la fekk yàlla xam na ne doo dëmm. waaw parce que ñu ci bëri ba ah. parce que dënn dëmm yàlla andi ko ci baatu. Ah. ak damm bu nekk bi firi deret ci alquran. Ah. moom lañ transformé. arab day wax deret ak damm. waaw kay. parce que boo demee day naan sa deret kon dëmm ah d'accord. yaa ngi comprendre waaw waaw xam naa boo demee ci laxdari Cheikh Abdourahman soo ma ne Saalum nga dëkk maa ngi koy doog a gëm Cheikh Abdourahman al yu andi na ko ci ci ci buntu gësin moo tax baatu damm fu ko wolof déggee rek mhm. day da koy jàppee baatu dëmm ñoom loolu lañ koy firi saalum saalum day dégg wolof waaw parce que baatu damm bi mooy firi deret <laughs> beneen bi ci def mun naa ma ne ko <laughs> seytaane jinne alquran jinne la andi ak seytaane kon uh-huh. yu ci bëree bëree bëree bëri nee naa ne nit ñi nañu war a demande gëstu ji parce que gis nga nekk ay nit di la wër si taxul nga li nga war a leerlu nga dem leerlu jox day yokk sa xam-xam te day tax doo am defet macha allah Abdou Gafour waxtu dafa jeex mm-hmm. euh, macha allah euh, vraiment mm-hmm. euh, damay sawar su nekkee ni nit ki woo naa ko mu may waxee ne Quran rek laa jëfandikoo lu mm-hmm. ma ci bokkaale du ma ci def sacrifice parce que tamit alxuraan moo ñu war a mën a defal lépp mm-hmm. te war na nga ci tuuti mm-hmm. euh, mënoon may dugg ci yeneen saar mais du ñàkk incha allah jeetaay bi du doon benn yoon mm-hmm. euh, ñu ngi gërëm suma euh, xarit bi nekk wal fajri mbay mbay macha allah daf ma woo man ko xaw ma ki may wax mu ne moi day ñëw ci télé bi man ko xaar ma gis ko mais la doon setaan yàlla yàlla fay la mhm. seen Abdou Gafour mhm. euh, ñu ngi fasant coloré mhm. xam naa maa yoo gis jëmm ji ma daan seetaan suñu plateau yi euh, Serigne mbay boole maak yow hésité wu ma parce que dama naan comme sama collègue la mu ngi ci télé dama naan ñoo bokk métier bi euh, te loolu ku nekk moom Euh, li li woykat bi waxoon gumba yu booloo nañu lafañ yu booloo nañu kon ñun dañu war a booloo kon euh, ñu ngi leen di gërëm di leen sant jox leen daje ci beneen ak nuur mm-hmm. sekk ci caméra bi wàllu montage bi Lamine euh, Dieng mm-hmm. logistique Pafay nga xam ne mbay da ko sonal xam naa joxal Pafay lu tax mbay dootu ko ñumee mbay ku yëpp Pafay la xam naa ne da nga wutal ñaan boo xam ne mbay dootu ñumee Pafay voilà mbay mii dafa yëpp sama góor bi lool ni yaayam la mais lu ne la koy sonal da ko sonal mais yàlla baax na incha allah jox naa leen daje ci beneen almur incha allah. Mhm. Abdou Khafour ñu lay gërëm bu baax. na di la di la tatagalaat wax dëgg yàlla. di la di la di la dellu ngërëm. parce que tamit suñu magum daara nga. bu amee déplacement am pour ñu waxtaan. di la tatagal rek di la ñaanal yàlla mbir mi yàlla bu mu am tànk ginnaaw amul benn muskil yàlla yàlla def ci sutura yàlla defal ñu ñi nga xamante ne bi ñu ngi dégg di topp yàlla gën leen a kàttana lu baax ñu topp macha allah jërëjëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu